leen di nuyu di leen ziar di amaat mbégte ñëw seen émission bi di conseil et astuce tey nag ñu ñëw fas yéene waxtaanee li nga xam ne moo di njariñu socc socc nag ku ne xam na ni weeru koor bi dañ koy utiliser bu baax a baax moo tax ñu indi ñu fas yéene leen wax li nga xam ne moo di njariñu socc socc nag day weexal bañ non seulement daf koy weexal mais aussi day dëgëral ay bañ bu baax a baax donc di leen faral di ko def bu bëree bari waaye tamit socc day weexal li nga xam ne moo di ay bët li nga xam ne seeni bët day faral di lëndëm ak yu mel noonu nañu faral di socc bu baax a baax dina leeral ay bët waaye tamit socc li nga xam ne dina yokk li nga xam mooy wér-gu-yaramu doomu aadama bokk na ci li nga xam ne mooy ay maladie pulmonaire maanaam feebaru ay dënn wala ay asthme ñi nga xam ne dañoo am asthme wala bronchite da leen di faj bu baax a baax a baax waaye tamit socc day faj li nga xam ne moo di ay courbature maanaam méttitu yaram bu bëri bëri ñi nga xam ne seen yaram day faral di diis bu bëree bëri nañuy faral di euh, socc bu baax a baax dina wàcc li nga xam ne moo di coonay yaram waaye tamit soccu day neexal li nga xam ne xel maanaam day yeexal ñi nga xam ne seen dañuy gaaw di fàtte lu bari bari mën nañuy soccu bu ko defee yàlla dina leen dimbali ci ay fàtte yaaw fàtte yu mel noonu dina leen ci dimbali moo tax ñuy conseil euh, xale yi ñu leen di teel a tàmbal ñuy soccu ndax day baax ci seen wàllu euh, jàng ak ñu mel na dañuy gaaw di mémoriser bu baax a baax waaye tamit socc bëri na ay njëriñ yooyu waaye tamit dañuy digle rek ni kuy socc dañu si war a boole làmmiñ tamit ndax ci la bokk ñu bëri dañuy socc te fàtte làmmiñ waaye tamit làmmiñ baax na ci loolu ndax day faj ay jàngoro yu bëree bëri socc tamit dina dimbal li nga xam ne moo di ñi xam ne dañoo am enzyme dañ koy faral di def bu baax a baax mooy feebaru ay put ak euh, yi nekk sa put di di di di ratax ak yu mel noonu nañuy faral di socc bu baax a baax a baax dina leen dimbali ci loolu nga xam ne mooy wàllu put ak yu mel noonu donc socc baax na ci lu feebaru ay gémmeñ wala ay ay ay put wala lu mel ni ay dënn yu mel noonu dee faral di socc bu baax a baax ndax socc ay njëriñam yaatu na lool lool lool. donc tey lii leen leen indiloon waaye tamit euh, du ñu fàtte euh, socc tamit day faj li nga xam ni moo di ay saan ñi nga xam ne dañoo am ay saan socc daf koy rey dee leen faral di socc bu baax ndax day rey li nga xam ni moo di saan ak euh, soxna yi nga xam ne am ay règles douloureuses mën nañ koy def bu baax a baax dina wàcc li nga xam ne moo di métit bi.